voilà salaamaaleykum euh, Géejawaay salaamaaleykum euh, euh, Géejawaay info ñëw def déplacement fii tey fii si benn école de football fii ci Géejawaay donc école de football bi nga xamante ni tey mi ngi tudd Talent Banlieue donc initiateur bi tey moom lañ toogal ni mi Abdoulaye Doucouré Dramane ñu gën ko xam ci Dramane fii si waax si quartier am lañ ñëw seet si ko xool naka la ñuy préparé ak naka la ñuy. Euh, maanaam naka la def ba am euh, centre bi ak ci yan pexe la ko la ko la ko lijjantee donc ci yooyu daal lañ ñëw waxtaan def benn genre documentaire xool naka lay naka lay préparé affaire yi donc euh, Abdoulaye Doucouré ñu ngi lay nuyu bu baax. waa Laye Cissé ma maa ngi lay nuyu di nuyu Bekaay di nuyu Grand Issa tamit waaw di nuyu ñëpp tamit di nuyu sama waa quartier ak ak waa Guédiawaye FC waa di la nuyu baax a baax. voilà donc suñu première question bi ñu lay laaj ginnaaw bi nga nuyu pare maanaam idée création école de football bi fan la jógee. Wah ëllëg création école football full, naa ne dafa jóge si man quoi parce que création école football bi mën ya naa ni xawoon ya ya na yàgg tuuti mais après dama stand bàyyoon parce que manque de matériel moo taxoon ma xaw a toog mais dem naa ba toog ba xam ne instant bi xale yi parce que soxla nañ ñu leen jàppale moo tax na bur jóg nag pour créer ko lii xam nga ak ak samay nit yu baax yoo xamante ne dañ maa conseillé moo tax ma jóg pour créer ko aussi donc mën nañ ne tey comme dàpp sa biir yoon nga wax kon fa école de football bi yàgg na waaw école football bi naa ne yàgg naa ne yàggu naa parce que boo xoolee ay 2000 2016 la woon sax le le 2016 la woon quoi mais après inauguration bi bees ma ko ba mu tuddaatee talent banlieue mun naa ne yàggul quoi. donc euh, avant muy tudd talent parce que mu ngi tuddoon école foot Cheikh Ngom. noonu la tuddoon quoi mais talent banlieue bi damaa jaaxle parce que banlieue bi ñëpp ñëpp laa bëgg ñu gis seen bopp. ma nee te te organise yëfu yëfu la quoi yëfu yëfu banlieue bi la. waaw loolu talent turu talent banlieue bi ak samay samay xarit bu baax toog ñu waxtaan si aussi ñu waxtaan si aussi ñu jox ma turu talent banlieue bi pour banlieue bi yëpp gis seen bopp. donc ma beneen question may laaj mooy que ni est ce que tey euh, centre de formation wala école de football bi am na récépissé. waaw maa ngi si loolu nag. waaw wax dëgg fa yàlla maa ngi si loolu maa ngi si loolu nag récépissé boobu maa ngi si. parce que sama grand bu baax ku tudd Alaaji Alaaji Sow waaw du ma sax wax kii bu muy liggéey ndax xam nga rek waaw moom daal ku baax la daal moom daal moo moo ma si nekkal quoi mi ngi si. te boo xoolee aussi projet bi tamit am na tamit sama grand bu baax ku ma ku tudd grand Madi Diallo wax mu nga ko baax a baax waaw aussi tamit taxaw na si baax a baax man daal affaire bi daal laay seetaanuñu ma quoi exactement yow lan mooy lan mooy objectif bi maanaam dem nga ba créé ko yow lan nga ciy séntu waaw ah, voilà merci laay bonne question lii nag li ma si séntu naa si bari parce que boo xoolee mooy lu ma gis na géej am na ay manque de taxawaay moo taxoon aw ma moom laa amuloon quoi mais gis naa fi talent banlieue talent fi géejuwaay fi bëri na fi ay talent ay boy mun foo fi nekk mais peut amuñu amuñu jàppale te aussi ñi bëgg naa leen gunge ba jusqu'au bout waaw man loolu laa des loolu lañ des quoi bëgg parce que fii ku si tekk yaakaar naa ni sa sa bopp nga tekki la ah. voilà foofu laay ñëw sax maanaam ci gunge jusqu'au bi foofu naka la gunge bi demee maanaam da ngeen jàppale xale bi bu amee ngeen bàyyi ko mu dem wala bu beneen club ci yéen mu dem maanaam ci yéen condition ngeen di eh, jour bi nga xam a ko formé waaw xam nga affaire yi moom yoon la rek parce que ñun au moins football lañ waa waat aussi xaw nañu xam tuuti te aussi euh, gis nañ ko mel ni président Jamil Faye waaw si si muy doxalee ak ay jouram mais contre si

léeg bu ma gisee benn booy muy taxawaal si mbedd mun football dama koy jël andi ko fii mm. waaw parce que ndax ndax mun footballam quoi mm. parce que booyee doo bàyyi ñuy taxawaalu waaw doo bàyyi ñuy taxawaalu quoi voilà donc ci beneen question bi mu posé mooy gis nañ fi bi beneen catégorie yu ah. donc euh, ñaata catégorie ñoo am fii waaw actuellement am naa quatre catégories ah mais cadet ñoo ñoo parce que instant yi poussin yi moom la béykat jëloon ni mm. fii sànq dana ñu si bëri dañuy jàng ak période bu ñu toll nii quoi moo tax parce que booy booy kare ñu si ëpp maa leen yoroon fee kare yaakaar waaw mais ñooñu nag ñoo ñëwagul quoi. est-ce que est-ce que Abdoulaye Doucouré yaa ngi veillé ci ci ci âge yu âge yu xale yi parce que bu ñu nee âge rek actuellement ni gis nañu rumeur yi am ci partout dans le monde ñii ñu def si fraude âge est-ce que yow yaa ngi veillé ci âge bi. waaw loolu laay maa si veillé bu baax a baax bu baax a baax sax parce que xam naa fii catégorie bu nekk ak âge bu ngay fubalee xam nañ ko quoi. est-ce que booy dañuy ñëw bu ñu ñëw di inscrire dañuy indi carte extrait wala lan. waaw voilà extrait extrait laa leen laaj. mais nekkul nag ñëpp nag am nañ seen extrait ñëpp ñë nekkul ñëpp andi mais ñu si ëpp fii ñu si ëpp maa ngi ak seen extrait waaw ñu ngi seen extrait quoi ñu si ëpp parce que boo xoolee tournoi yi ñuy fubal ku amul licence du ko fubal kon yaakaar naa licence balaa nga am foo nga am extrait waaw voilà. donc tamit ñu gis aussi tamit que ni euh, yaakaar naa ni ku wax euh, école de football wax wax jàng donc ñu gis na tey kenn ni donc mënu ko yor donc ñu laaj yow ñu la laaj kan moo nekk sa ginnaaw ak ñan ngay liggéeyandool. waaw ah, voilà merci laay si surtout surtout si jàng boobu parce que gars a yaakaar nañu ne école football moom booy kii man ñoo ngi nii da après bu la neexee mën nga si jël benn nga laaj damay vivé seen jàng surtout loolu seen jàng bi dama si bëgg ñu taxaw si bu baax a baax a baax a baax a baax parce que fii am na ñoo xamante ne sax seen première composition note bu ñu amoon deuxième compo amuñu note ku fi jàngul da ngay toog parce que football dafa dafa foo xamante ne laay après boo jàngul sax doo football. sport étude la. parce que vacances yi sax xalaat naa si maa ngi bu tudd Zo vacances bu ñu mënee jël booy di leen jàngal ko di vacances quoi waaw loolu aussi tamit xalaat baax baax parce que loolu si projet bi la bokk waaw donc ñan est-ce que mën nañ xam ñan ñoo lay jàppale ci liggéey bi parce que donc mënoo jore benn mais en même temps cadets yi ak beneen catégorie est-ce que mën nañ xam ñan ñoo lay jàppale ci liggéey bi waaw liggéey moo ñu fi fekk rek gisoo Aliou Gueye mi ngi noonu moo nekk si poussin bi ak Ousseynou Ousseynou xam naa moom dafa liggéey ñëwul Iba aussi Iba Iba yaa ngi ko gis Yoro aussi sama copain Yoro xam nga ko da si ñëw jàpp ñu si bëri dañ si jàpp daal ñu si bëri Aliou moom ci préparateur gardien waaw ba si préparateur gardien yaa ngi gis Ousmane moo fi nekk Ousmane Ousmane Ousmane Diarra mooy mooy góolu Kaana moom góolu mag la macha allah waaw mais yow moo moo moo si nekk quoi parce que laay liggéey bi nekkul liggéey kese liggéey parce que am na ñoo xam ne dañoo laaxatu am na ñoo xam ne peut-être ñun ñoo euh, xam ne mucc la ciy jàppale waaw waaw laay surtout loolu nag surtout loolu yaa ngi soo wax kii nag <laughs> parce que école football ku ne école football rawatina ay xale xam nga euh, dañuy soxla lu bari ballon déjà dañ koy soxla dosaar yaa ngi nii mais dosaar ba ma demee keroog tamit xam nga macha allah gis na dosaar di yi dama dem gars defal defal ma parce que man si la si la si foofu laa bokk. kon mën nañu jàpp ne Abdoulaye Douk yaa génne sa propre di jënd say matériel. waaw ne maay génne sama propre sax parce que boo xoolee loisir dañ ko defar. dañ ko defar mais loisir ku si booy bu si nekk bi da ngay nga pour nga pour nga joxe da ngay joxe mooy loisir bi. comprendre si la ñuy jëlee gis jënd ay dosaar gis nga dosaar yi ñu jënd ak échelles ak yenn ballon yi quoi waaw mun naa man aussi tamit danaa si génne sama xaalis mais tamit loolu tamit moo liggéey bi ñoo ànd parce que booy tamit doo laaj kenn lan ko ay joxe li joxe laaj kenn lenn kese laaj laaj booy ku si bëgg a bokk instant bi inscription bi loisir kese ngay loisir nga joxe 5000 francs kese parce que loisir boo lu ñu dikkee ñëpp xam loisir ñu koy defaree waaw ah, pour loolu la quoi. donc yan difficulté ngay rencontré bi nga créé depuis bi nga créé sa école de football yan difficulté nga gën a rencontré. waaw difficulté bi may rencontré mooy mooy mooy mooy foofu rek mooy manque de matériel quoi. parce que boo xoolee école football moom ku ne école football laaj dafa laaj jàngal football daal dafa dafa dafa laaj lu bari quoi. parce que dafa laaj lu bari dafa laaj ay matériel lu bari xale boo xamante ne mënul football xamul lu ñuy dóore bal foo nga am noo ko noo noo fexe ba mu dóor bal te aussi loolu tam dafa laaj ay matériel donc bu ñu ñëwaatee tuuti ci génn ci tuuti ci euh, école de football ñëw ci Doucouré en personne donc Doucouré yow euh, centre de école de football bi nga jékki-jékki nii créé ko dafa am foo jaar ci football wala nu mu demee noonu wala da nga a football. voilà man damaa football nag ma xam sax xam football naa fa 3 ans waaw Lamine Sarr joué naa fa nawet dafa 3 ans di sant Palmer bu baax a baax sama coach moom moo ma njëkk a man ba may nekk xale damaa mat damaa rek damaa mat senior gars yi naan booy bu ndaw booy bu ndaw ma dem nga gëm sama bopp par tamit am si man confiance par rapport ak yeneen euh, école de football yi nga xam ñoo nekk ci au niveau de Guédiawaye wallaay maa ngi sant coach yi bëri Guédiawaye fii wax dëgg fa yàlla parce que démb rek affaire rek gis nga publicité bi parce que Guédiawaye ñëpp ko bu naa ne ñëpp ko yëg ku si ay Birame Koundoul maa ngi koy sant bu baax a baax Koso coach maa ngi koy sant bu baax a baax Pape Camara coach maa ngi koy a a maa ngi koy ak xalifa euh, euh, xali père xalifa xalifa mhm. maa ngi koy sant bu baax a baax a baax laay coach yooyu wax dëgg fa ñooñu daal seetaan ñu mhm. mhm. nga xam centre bu baax a baax laay xalaat naa loolu bu baax a am nga benn partenaire bu lay jàppale waaw wax dëgg yàlla fii amaguma ko nag Ah, amaguma ko wax deug fa comme damay soga dor xamna ni peut-être loolu tax mais ñu ngi si ñu ngi si dox face procédure yoy wa ñu ngi si dox té aussi tam amna amna amna samay grand yu baax yoo xam ne daal nee na may liguel rek mm-hmm. parce que gëm na ne aussi tam ñoo duñ ma sétane quoi ñu ngi ñu ngi si bu baax sama dernier avant dernière question moy ko di dañu gis euh, équipe bi nga am benn couleur bi nga xam mom lañ ni muy jaune bleu donc lan moy lan moy lan moy choix jaune bleu wa jaune bleu bo xolé lay couleur bi bo ñu koy boo boo xoolee man dafa xalaatoon na bleu blanc mm-hmm. ma xalaat ni bleu blanc moko ko gaay gars comme affaire IC jubóo la quoi comme yow jubóo nga dëkk IC jubóo mm-hmm. vert blanc bi aussi tamit yoroon naa ko de yaakaar ren gars yi mën nañu xalaat loolu ma ne léegi pourquoi pas ñu jël bleu zone après bleu zone bi tamit dañ see waxtaan rek gars yi ma moo tax zone bi géejuwaay bi parce que yow tamit ku loo xam xam na ci supporteru géejuwaay nga bokk est-ce que du bleu zone géejuwaay nga ñëw jël rek daal koy indi fii mu nekk sa sa couleur waaw mën naa ne bleu zone géejuwaay du ma du ma du ma mooy couleur Guédiawaye te aussi tamit talent banlieue Guédiawaye la nekk mais pourquoi pas tamit ñu jël couleur bu couleur Guédiawaye ko si moo gën tamit ñu jël ay couleur ay see jàmbur ay see jubóo ay see yaakaar ñu naan am nga ci say joueurs non non mënu am gàllankoor suñu joueurs parce que laay boo xoolee dañ kaa créé ren euh, demaguñu fenn mais cadets foog ñuy compétir football dafa laay joueur foog ngay compétir man joueur bu joueur sàmmeraan dafa nga compétir parce que mënoo nekk joueur ba pare nga toog nga doo compétir loolu mënoo nekk côté compétition est ce que yow sa joueur yi ñu ngi dem di compétir ak yeneen centre de formation ak école de football yi waaw instant yi am na ñu ma école suba rek am naa mas entraînement waaw suba rek parce que Pape Camara rek Zéna moom mas mas entraînement bu neex ñaga Ba aussi tamit Zéna moom mas entraînement Mbaye Diouf rek tey rek tey mu may woo tey di ma mas entraînement suba ma ne ko non suba dama am mas entraînement kon boog maa ngi si mas entraînement bu baax baax sax donc tey boo amoon sa benn dernier mot bi nga xam moom ngay wax tey man moo la wallaay maa ngi sant ñëpp nag di sant ñëpp dafa am na ma fàtte wax tuuti parce que laay boo xoolee vacances yi mo gëna a yokk tas sax man moo man moo man mooy créé école bi quoi parce que boo xoolee noyade bari na trop mm. légui surtout vacances bo mëna nga boy basé la ñu ñu ñu toog bañ dem fenn bañ dem baye dem bañ a dem géej man loolu moy sama bëbët quoi loolu moy suñu bëbët. manam ci ban ci ban kot naka nga leen di téye. téye mooy am sen temps rek sen temps ñëpp xam nañ ne xale lu bëgg moy bal li kese li rek lañ bëgg kon bo xalé bo xagne li rek am ak ki nga ko quoi am nga ko waaw nga ko quoi te aussi ak sen éducation sen yarbe aussi tamit amna ko ma fi daaxoon mais après andi war na ko mais lu tax ma dàq ko mais après rëccu na loolu te dootu ko defaat ah, xale moom loo koy dóoree moom lii kese du ma fi dóor kenn du ma fi saaga kenn mais lu ñu fi def loo xamante ne neex ma loolu kii dama lay dama lay dàq nga dem toogi man maay xool ba heure bu la neex nag ma andiwaat la boo ñëwee bu subaa doo defaat loolu. yow ban relation nga am ak ñoom ak seen i waajur. waaw seen i waajur tamit maa ngi leen sant bu baax a baax parce que tamit lu gën a garaaw laay jël sa jël sa doom la ko am dénk naa la du kuré loolu dafa yaakaar naa loolu rëy la quoi jël sa doom ne ko la Doucouré yaakaar naa loolu laa la quoi te seen waajur tam dama leen sant bu baax a baax si loolu te aussi tey bu ñu am si Doucouré yàlla bu yàlla tas yaakaar bi voilà voilà donc mu nekkoon euh, Abdoulaye Doucouré fii ñu seeti ko si euh, école de football bi nga xam te ni créé na ko macha allah mu ngi ko tuddee banlieue foot donc jàngat nañ ci lu bëri ci ay biir waxama ah. jàngat nañ ci lu bëri yoo xam ne lu ma gën a remarqué rek mooy que li nga xam te ni ci vacances la ko bëgg a def muy fexe ba téye xale yi nga xam te ni dañuy dem di def ci plage yi di noyaat donc wax na ko ci ay biir waxama loolu vraiment ñu ko ci encouragé bu baax di ñaanal yàlla lii nga xamante yi nekk fii donc ñaanal ko lu mu ci bëgg rek suñu borom def ko ko ci loxo donc ñu ngi koy baax di ñaan aussi ñëpp ñi nga xam te ne ay bonne volonté la nekk biir géejawaay donc ñu ñëw jàppale leen ah parce que ñii dañ bëgg di leen dañuy sawar ñuy ñëw di leen jàpp di leen jàppale parce que ku jël sa xale ñëw mu dem war a dem géej nga ñëw indi ko fii def ko bu nekk école de football donc vraiment dañuy ñaan daal ñi nga xam ñoo nekk ci ay autorité nekk biir géejawaay fii ñu ñëw teg leen loxo jàppale leen si côté surtout si côté matériel donc di leen euh, gërëm bu baax a baax baax waaw ñu ngi fii ak euh, benn ci jour yi parce que ñëw nañ fekk si fekk nañ catégorie bu nekk donc ñëw nañ fi peut être euh, laaj ko moom naka la ba nag Ablaye Ka nga tudd Ablaye indi ci euh, ci école de football bi kan moo la fi indi sama yaay sa yaay la fi indi léegi yow yaa ni ko muy la fu la rek nga ni dama bëgg a quoi hmm? man ma dama bëgg dem nga bëgg dem pourquoi nga bëgg a ñëw football fii dafa neex dafa neex yow ban classe ngay def quatrième quatrième donc est ce que naka nga mën nga boole jàng bi ak football bi waaw du la wàññi hmm. sigil sigil nga xool micro bi mën nga boole jàng bi ak football bi waaw du la wàññi dara de ah seen classe ñaata nga jëloon seen classe quatrième quatrième nga jëloon ah donc c'est bien donc est ce que fii entraînement bi metti na wala mettiwul mettiwul hmm. entraînement bi mettiwul quoi heure ngeen di entraîner 3 3 yow kan moy sa référence ci football yow manam maanaam tay bo beugé dem ba nek footballeur bu mag ci kan nga bëgg roy école football hmm? école football amna ben joueur bi nga xam tane joy ñaan nga yalla nga melna mom ban joueur la Jordi Alba Serge Alba donc mën nañ ban poste ngay jouer Rasara gauche Jordi Alba ban ban ban équipe lay jouer Barcelona Barcelona nek donc ñaan nga yalla dem ba nek ay ñom Jordi Alba dem di jouer Barça lool est ce xam nga la mo la ko waroon may lan moo la koy may. jàng. ah jàng jàng. voilà donc mu nekkoon benn ci benjamin yi di ko aussi euh, ñaanal yàlla daal yàlla dafa ko jàmm baax baax baax donc ñoom ci poussin yi lan mu ngi nii lu mu wax tamit leer na mi ngi jàng mu ngi football donc yàqalu ko dara daal si ànd tamit boo xoolee tamit am na benn référence mu jox muy Jorge Alba donc c' est un latéral gauche di ko ñaanal yàlla yàlla ñu ngi fii ak beneen aussi euh, catégorie minime donc euh, ñu bàyyi ko mu def présentation na ko maa ngi tudd Zilbel Mendy. Zilbel Mendy. waaw ah. voilà Zilbel euh, naka nga def ba ñëw ci euh, école de football bi. ah man dañ ma fay andi woon pour mooy góorgóorlu si école de football bi. donc avant nekk si école de football am na feneen foo nekkoon. ah man avant ngay nekk si école fii am na feneen foo nekkoon. nekk moon feneen. donc fii rek nga a nekk. waaw fii laa nekk. Hmm. Hmm. fii depuis kañ yaa ngi fi nekk depuis bi ñu ko créé wala. ah nekkul côté. ay côté 2012 côté yooyu suma juumul. Hmm. donc yow naka nga gisee naka nga gisee euh, école de football bi ci organisation bi yëpp quoi. Ah, teg nañ ko si yoon. Hmm. waaw ñu ngi entrain ñu ngi góorgóorlu rek. Hmm. waaw entraînement bi méttiwul quand même. méttiwul la. mais ñu ngi leen entraîné par rapport ak yéen seen i seen i âge. waaw waaw ñu ngi entraîné. si quartier bi nga dëkk. man quartier bi nga dëkk. déedéet. quartier jubóo côté. jubóo waaw. waaw donc yow nga nga romb ay eh, ay école de football yu bari nga xam te ne nekk nañ seen côté bobu nga ñëw taamu école de football bi loolal moo waral ah ku nek ak fu ma choisir rek hmm. ah, dama dañ fay andi pour ma góorgóorlu waaw yow ban poste ngay man attaquant attaquant hmm. attaquant dafa bari attaquant point wala excentré excentré excentré droit wala gauche droit excentré droit donc yow tey boo demoon ba nga xam ne defal na nga jàpp nga nekk koo xam ne un professionnel ñaanal lañ ko yàlla donc yow ban jour nga gën man am référence ci ah man damay damay jàng nit ñëpp rek. Hmm. bëgg naa ñëw ba dépasser comme ñooñu. Hmm. Hmm. lan mooy sa ambition actuellement ni ci école de football bi. lan mooy sa ambition maanaam lan nga bëgg a nekk après quoi. ah bëgg naa doon joueur. Ah, waaw donc mu nekkoon euh, kenn ko ci ci yi wala junior wala euh, donc di ko ñaanal yàlla daal yàlla na ko yàlla suñu borom defal jàmm fii mu nekk donc euh, ñu koy jox ah, rendez-vous ñëwaat nañ ak kii nga xam te ne comme li ñu waxoon sànq moom mooy initiateur école de football mi Abdourahmane Abdoulaye Doucouré Dramane donc ñu bàyyi ko mu def benn dernier moom maanaam am na ñoo xam ne lañ leen remercier ñi ko jàppale ci centre bi wallaay maa ngi remercier ñëpp wax dëgg fa yàlla maa leen sant yéen bu baax a baax yéen waa Guédiawaye liggéey bu rafet bi ngeen def digg géej waay wax dëgg fa yàlla ñëpp a ngi koy rafetlu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp wax dëgg fa yàlla ñu leen sant bu baax a baax Bécaye maa ngi leen santaat bu baax a baax grand Issa lay Cissé yow yow moom mooy loolu yow moom du ma sant sax waaw yow moom mooy loolu ndax yow si nga bokk ku si mel ni président Djibi si wax dëgg fa yàlla maa ngi koy sant bu baax a baax grand Mari Baara sama copain maa ngi koy sant bu baax a baax a baax ma may woo léegi sax xam naa ne mi ngi ñëw di sant waa quartier bi aussi Laye quartier bi parce que affaire yi yaakaar naa bu bu yombee rek waa quartier bi yombal nañ ma ko waaw waa quartier bi ñu ma xaar yombal bu baax a baax waaw wax dëgg daal di leen sant waa Guédiawaye sa mangage aussi sant bu baax a baax sama gars yëpp daal laay sant bu baax parce que ku si nekk ñoo ngi may laaj du ko école fu mu toll lii ba am na si ñoo jël seen dañoo jël seen propre moyen jël ay xaaj ma ko jox pour ma jënd si ballon quoi di leen sant bu baax a sama waa ko waa groupe aussi waa Firao di leen daal waa di sant aussi sama yaay ak sama papa di leen ñaanal yàlla bàyyi leen fi ba yaakaar bu ñu jërëjëf voilà donc mu nekkoon Abdoulaye doukouré Dramane comme li ñu koy wax rek sank ñu def ben genre brief bu ndaw yaaka naa tay waxna lepp na lépp ah wax tamit li wax doom lañ ay jouram wax donc fi dal ñu koy ñaanal yàlla dal parce que moom aussi nekk na kenn ko xamanteni te xam nañ ko fi ci niveau football au niveau Guédiawaye donc mu nekk ko xam bëgg na li def donc nekk un jeune tamit ñëw ba am idée bi am création fekk xalé yi taxawaalu mën football nekk dëkk ci quartier bi nga ñëw dajalé len jox len seen sens pour accompagner len donc lool duñ def lu diko ci sant diko ci remercier parce que bu ko defalee defalu ko boppam ah, également ñun la ko defal ñu ñëpp parce que ñun suñuy rakk a ngi fii rakk keneen a ngi fi donc doomu jàmbur a ngi fi doomu keneen a ngi fi donc dajale leen ñëw te xam na ne yor xale nu mu méttee moom laajul dara lu dul ku ko accompagner donc ñi ngi lancé waat appel rek di lancer waat appel autorités yi nga xam ñoo nekk fii au niveau de Guédiawaye ak bonne volonté yi nekk ci quartier yi ñu ñëw teg ko loxo parce que lii lañ fi am ah, sport lañ am donc ku ñëw teel la sa xale mu lay jàngal résultat yu baax gis xale yi fi wax léegi sànq que ni ñi ngi def résultat yu baax au niveau seen école donc yàqul leen dara ñi ngi jàng ñi ngi football donc di leen wax daal ngeen ñëw ngeen jàppale leen na partenaires yi ñëw accompagné ko Abdoulaye Doucouré donc centre ngi noonu seen centre la donc di ko ñaanal yàlla daal yàlla na ko yàlla defal jàmm ci centre bi